bu baax a baax di xaarandi keneen ci 77 810 90 90 si bu mu jokkoo bi euh, li ñuy waxtaanee bokk na ci euh, conseil des ministres décision yi nga xamante ni jël lañ ko ni ki démb euh, ki nga xamante boo di njiitu jëwrin bi lu jëm ci nag récupérer waat lépp lu jëm ci patrimoine foncier ak bâti yi nga xamante ni daal jox nañ ko yenn ci ay privé te teguwul ci yoon bokk na ci également li nga xamante ni moom moo jëm ci wàññite coût de la vie bi internet beeg yu ni mel waaw asalaamaaleykum ci ak euh, leneen ci ay saytuwaat convention mel na am na ku nekk ci buumu jokk bi asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum ñu ngi lay siyaar bu baax. waaw ñu ngi lay delloo siyaar bu baax yëkkatil baat bi tuuti. maa ngi ziar ñëpp képp di sama kàddu maa ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi lay bu baax Diallo. waaw di ziar ñoom Binta Sarr ñëpp ak ñoom Sarr Touba ñëpp maa ngi leen di ziar. allah. di wax ne réew mi gars yi nañ di wax ci thème bi. am na solo trop. parce que nañu dimbali rek ñoom ñoom mën nañoo changer contrat yi yëpp man d'accord naa si nañ ko dem xoolaat parce que ñoom lañ fal ñoom lañ jiital waaye nañu dimbal te yaatu lu wàññi na trop Sénégal yaa ngi bëgg de ñoom li ñu waxoon dara amul dara zéro nit bu nit boo bu la falee pour nga jëndum réew nga ñëwoon buñ la joxee Sénégal boo jëlee réew mi lépp dina wàññeek dund dina wàññeeku démocratie na am mais Sénégal démocratie dafa némbér dafa dellu ginnaaw gis nga nit ñi dañuy wax dëgg te yaatu ku wax dëgg te yaatu xam ñi demuñu dikkuñu dara yombul dara avance liggéey ñu benn point bu baax lu loolu ay tëj ay doomi jàmbur lañ commencé fi doon ñun ñun fi ñu leen xaare mooy ñu ñëw liggéey ni Macky Sall moo fi liggéeyoon lii ñoom def na fi un Macky Sall def na na def na fi deux mais zéro man naa tey la Macky Sall doon liggéey ba léegi moo fi nekk ba léegi mm-hmm. man gisuma lu fi premier ministre gisuma lu fi président liggéey amul lenn fi liggéey ay nekk ay contrat de pêche ak ay contrat de ligue ay contrat de loolu amul benn njëriñ mm-hmm. parce que boo xoolee contrat yi fi newoon te moo gën ñoom fii la leen fi indi ñoom dara liggéey ñu Sénégal yi dara du nekk dig Sénégal yi deux mois fu mu am ñu nax Sénégal yi def la ni fi def di benn ay góor jigéen di benn nangam nax Sénégal ñu jàpp ay ay jàpp ay nit rek di nax Sénégal ñu naan gàcce nga loolu mooy liggéey léegi jàpp ay nit moom mooy moom mooy mooy ndam pour pour pour am pour avance loolu la leen Sénégal yi fale mais ñun fu Sénégal jëm ñu leen démissionné ñii normalement dañoo war a démissionné parce que war nax nañ Sénégalais war nañ Sénégalais parce que képp di Sénégal yor njaboot war nañ ak koo mën ci

parce que ñun dañ leen a far pour ñu indi ñu wàññi dund bi wàññi ñu gaz affaire pour dund bi gën a mën yomb lépp a yokk. tey jàll ñi ñi ñoo est-ce que teelut ñi ñoo ngi doog a a toog day ah. toog amaguñ sax ñaari weer est-ce que mën nañu est-ce que mën nañu yàq réew mi tey ñu instant bi nii ñu ngi ngi xoolaat lu jëm ci contrat yi euh, saytuwaat contrat yi ci wàllum napp bi ci wàllum gaz beeg pétrole bi euh, yooyu yëpp ñu ngi koy xoolaat wàllum wàññi dund bi yooyu yëpp également ñu ngi koy xoolaat wax nañ ko démb ci conseil des ministres jàpp naa ne également ñu ngi ci ay actes yoo xam ne ñu ngi koy a nga courant bi ki doon lakk dix mille yaa ngi lakk léegi quinze mille ñii dañuy nax Sénégal yi c'est que gis nga gars yi ñoo nekk bëgg ñu wax dëgg ci réew mi ñun on est Sénégal te ñun Sénégal moo ñu ñor mhm. tey man kilo ceeb bu doon jot cinq mille mën naa koo jënd mhm. mais damay xool ñi nga xam te mënuñu koo jënd sama mbokk yi nga xam ne mënuñu koo jënd man foofu laay waxee mhm. tey kilo ceeb bu doon jot six mille mën naa koo jënd di ko dundee sama njaboot mais du question man mën naa ko ñeen ñi man mënuñu mën nañ ko am ñoo xam ne ñu koo mënul dafa metti ñooñu leen war a xool parce que dana fal pour ñu yombal dund bi yombal affaire mais nekk ci tëj ay nit naa di moo wax léegi ñun andiw loolu andiw taxul wax far leen nan ñëw dimbali Sénégal jàppale Sénégal yi ñii mun ñoo dem ñii amul xam-xam sinon nan woo nan woo nan woo nan woo nan woo premier ministre Amadou parce que plan émergent bi Amadou moo Amadou Ba moo ko moom nan woo Amadou Amadou ñëw liggéey ñoom nan la ñuy lan la ñuy rëy yow ñëw nga yow nga ñu jox la réew mi attanoo réew mi Ba mu ñëw nan woo Amadou na rëy na Ousmane Sonko moom mi premier ministre na woo Amadou Ba Amadou Ba teg ak moom nu liggéey ñoom ñaar plan Amédina alal Sénégal milliards yi commencé waat eh. Sénégal dox na mu doxee waaye jàpp nit ñëw naa ay kii moo wax lii kii moo wax lii kii ñun loolu taxul fal leen li leen fi fale mooy réew mi na na lépp naat na am démocratie mais réew mi fi na démocratie daanu naa parce que bu ne bay bàyyi ñi di jàpp ñi di bàyyi ñi xam moo leen réew mi démocratie amul fa mm-hmm. kon di ko waxee naan Macky Sall dictature la ñoom na dictature yu mag yi eh. parce que boo dee bay jàpp ay doomi jàmm ñu xam tey daw yow tey kan moo fi njëkk a saaga président de tous ñoom la. Mhm. xoolal waa ji dëkk Amérique tey daan ni moom moo doon rey ay doomi jàmm tey mu génn di fen naan di wax ñëpp di ko seetaan. vidéo mhm. di di di di lan réew mi nañ jël pour ko fële te ñu wax dëgg te yàlla tax waa ji bu juumee na dugg na ñëw baalu ak Sénégal di damaa juum bi may wax man maa yónnee xaalis damaa juum Sénégal yi baal ko parce que réewum jullit la fii ku baal nu baal la mais kon bu nu bàyyi nit ñëw fenn ay fenam ni moom moo rey ay doomi jàmbur yu bari tey mu ci xëyit ñëw naan waxuma ko dañ maa dañ maa fabriqué dañoo dañoo montage ban montage yow vidéo nga dugg soxla di wax ñëpp di dégg Sénégal yi dégg nit ñi waxtaan ba da nga xam ne nit ñi jam la nga ñëw daal du man waa affaire yi ñoom noo def noonu mais fu Ousmane Sonko kii naan waxu fi dara tey ma waxee nit damay wax nit ki la nga ma defee dara. Ousmane Sonko ñëpp dégg na ay cas de bataille tey lii ñu jàppee ba jaxate bu dee loolu la kon Ousmane Sonko moom muy premier bi mu indee góor jigéen procureur da ko waroon woo parce moom bi mu nee demoo premier ministre Ousmane Sonko Pastef la demee lan moo tax procureur woowul Ousmane Sonko ni ko lii réew mi Sénégal bëggul lii Sénégal bëggul ko Sénégal bëggul ko fi waxee ko ci kaso léegi léegi daal léegi ku ma day amul te ku ma Ousmane Sonko dafa lu leer nee na déwuma en tant que premier ministre damaa dem en tant que Ousmane Sonko Pastef kon Bass Diakhaté bi nga koy tontu Pastef la ko doon tontu nag gars yi delloo nañ wax dëgg dañ bàyyi naxante bii kon Ousmane Sonko ñëpp li mu wax kenn ñu naan fi alors Ousmane Sonko wax na fi waaye paaw Kaolack lu bon a bon ñëpp dima bugg ma see jaaral ñëw daal ni Sénégal yi ku dee sa jur bi yaay juraat ñëw ni Macky Sall nañ ko def comme ni ñu def waaye Nigéria ma nañ ko rey daggante ko ñëw ni dañuy dañuy dañuy jële Macky Sall bi pare bi looloo gën a ñaaw c'est que gars yi nañ bàyyi yooyu lu jàll jàll mais nañ di wax dëgg dañ wax dëgg dëgg mooy nañ gars yi ñëw liggéeyal Sénégal moom lañ la fa fare mais fa ñu ne ñëw di nax Sénégalais yi parce que mm-hmm. lii ma gis nii pàccoo bi commencé na ay pàccoo la ah. di mm-hmm. menace nit ñi naan ku wax ñu jàpp la bàyyi nu kon nañ tijji kaso parce que dëgg moom moo njëkk tamit waxuñu kenn muy saaga doomi jëm wala du tooñ mais lii dëgg teg ci sa loxo teg ci sa tànk ëllëg Abdul day dee si dëgg mais boo dee julli par ragal dëgg naan nga waaye da ngaa jàng jàng alxuraan jàng téere yàlla bi di fen la amul benn jullit bu nangu nit di fa indi di fa indi góor jigéen ci réew mi amul benn jullit imaam bu dugg wala nga dugg ci siit yi naan da ngaa jàng wala nga ab naa fekk bon nga parce que ku ne ci dëgg du wax yenn yi. nañ ko wax te dee. nii mënuñu dëkk ñu nañ nañ démissionné nañ ñu dimbali yàlla ñu démissionné. Sénégalais du question cinquante quatre pour cent yi voté rek ñoom ñooy Sénégalais yi. li voté moo ay baykat la ñii ay liggéeykat la ñii ay jàmbaar lañ. te xamuñu politique dara ñun bëgguñu politique man yàlla musulmaan yi fi am ministre ñun Sénégal avance moo ñu ñor ñun xamuñu ñun xool ñu ministre xool ñu député xool ñu dara li ñu xam mooy liggéeyal suñu bopp gëm suñu bopp doom benn doomu aadama jël di ñu fenn lool mhm. kenn jërëjëf booy dund war nga woo tax woo tax benn doomu aadama di la gënal say waajur wala benn doomu aadama di la gënal ëllëg boo dee ni la yàlla li la laaj mhm. kooku benn doomu aadama war koo jëral kenn léegi na dem na ba podi mbirum àdduna alalu àdduna teraangay àdduna tax na ku ne di fen ngir demante parti suba ni da ngay dee nan di wax dëgg ñii dem jëm kanam ok ngi laaj un appel seulement bu dee président Diomaye Faye mi ngi may dégg xale yi ay visa dem tukki c'est ça le problème loolu loolu mooy solution hmm. que am réew bu tukkee bu doxee tukkat noo ko yor am bu doxee xale yi gën dem liggéey noo ko yor xale yi ne bàyyi nuy ambulant na leen wutal ay visa nu génn ñii dem Amérique ñii dem Italie ñii dem Espagne ñii dem feneen dem liggéey indi teranga ji kenn du faale politicien kenn du faale nangam kenn du faale dara bu nawet bi doxee léppay baax day dem mu mujj kenn du faale politicien am na wala politicien amul mm-hmm. mais tey soo gisee mi nit ñi yëpp di jooy di xeex maa xiif gee metti Sénégal yi ñoo xiif bari ñu xiif te ñu ko war a mooy ñii nekk mm-hmm. ñii nekk pouvoir parce ba Sénégal di yaakaar dara amul. kon Sénégal loolu la war a waxtaan te bàyyi débat yi xasta yi débat tàggate jërëjëf Diallo jërëjëf waaw jërë leen jëf waay leen ziar ba defar seen liggéey waa kay jërëjëf jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom euh, Abdou Diallo euh, ci kàddu yooyu lee di xaarandi gën rek ci buubu jokko bi 77 810 90 90 ngeen mën a dugg euh, jox seen xalaat di ziar bu baax a baax ñi nga xamante également ñu ngi ñuy teewul ci suñu ay plateforme Fabrice ñu ngi koy